faida bige kumba fal njara ma xoli ba boyi góor fal malay woo fal may sa bige kumba fal nee na lees woy nee na lees wawul bul dégg dal di gëm wala gis rek di waaw gis dama war a réer dégg jàngal le chabir biir du lépp lu ñëw rek le so gooy leesooy ni na lees waxul njaaroma ndigal bàyyi góor njaarama yooy jàmbaar bi faal jàmbaarooy ni la di mel ni la di mel faal bu mambwa tinavala maizabige kumbavala yaizetu ibravala maizabige kumbavala samami bravala fenyal mahamadu bamba jambaro indigalval nenale mbokku déglukatu rajo Joko FM asalaamaaleykum wa rahmatullah rafetlu seen ànd ak bilépp rajo seen émission jàkkaarloo politique dimanche bu jot ah, Moussa Pouy nekk ci waxukaay bi Assane Diour fare ci xarala gi Ah, tay nak ah, ñu fassiyene and ak yeen ak ki nga xamne moy suñu gan di nak ah, Guilé Diop mom mi nga xamne responsable politique le parti démocratique sénégalais nek ci commune bu Bambilor des na waxtaan ak mom ci la nga xamne mom modi tollu bi sen parti bobé ci biir gox ba nga xamne fa la fekk baax nak nonu ci département Bilé ciow yi nga xam itam nemmeeku nañu ko ci sen biir sen taxaway ak nga xamne non lañuy yoré rawati na rawatina commune bu Bambilor way itam ni nga xamne sen parti ni le bindo ak ni muy doxé département bu ci ak mbiccoog mballo gi nga xamné ne messu dañu ko euh, walum actualité taxaway bi nga xamné président Macky Sall euh, mom taxaw na ci nak wara samp ndëndu li nga xamné ñom ñoom ñoo di euh, war falu ci gox goxati waye ba fi tay politique bobé ma ngay gossé jàppees né ay date yo xamné ne nak fi mu ni wéré gu ci na ci itam la nga xamné ne nako na ci walum actualité mu di nak lepp lo xamné aji wona ci taxaway bi nga xamné président Macky Sall namm na ko ci xettali ndaw ñi gannaaw coow yi nga xam ne moo doxoon ah, ca ah, ba ñuy xëcc xëccoo ah, ci mbedd yi ba am ñu génn am ñu ci loru jamono bi nga xam ne mbirum Sonko ak Adji Sarr jip na lépp des nañ ko waxtaane waaye itam mbokk na ci ki nga xam ne moom moo di Karim Wade ndax dana doon candidat fa ñoom ci élection yi ñu namm ci 2024 loolu lépp danañ ko andi ay leeral ak ki nga xam ne moom moo di Gile Diop ñu koy wax asalaamaaleykum di la wax dalal ak jàmm ci biléb émission bàyyi la n nuyoog mbokku diglukat yi euh, je euh, suis am kontante si invitation bi ngeen si Radio communautaire de Joko FM bi nga jouer véritablement votre rôle dans le département de Rufisque euh, di nuyu aussi l'ensemble des auditeurs et auditrices euh, de Joko FM di nuyu aussi le président de la fédération du parti démocratique sénégalais M. Daouda Niang mhm. au passage mhm. du tous les responsables militants sympathisants du parti démocratique sénégalais dans le département surtout les responsables du CLDR mhm le collectif départemental des responsables libéraux du de du département de Rufisque maa ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax di leen baalu àq di leen baal àq aussi si weeru koor weeru tedd bi ñu nekk jërëjëf. rafetlu itam ah, nangu gi nga xam ne nangu nga ko ñëw wuyuse ci bilépp ah, émission xam naa nag ah, ci ndoorte des na la laaj rek tey ji nii suñ doon tënk ngir xamle sa bopp ak ñi nga xam ne moom moo di mbokku déglukat yi kan mooy Guillé Wow, Guilé Diop euh, c'est un euh, responsable du Parti démocratique sénégalais euh, de Bambilor Il ci parti bi am ci responsable au niveau local Bambelor et au niveau du département. département est aussi membre de la fédération des cadres libérales euh, si Benen fan aussi je suis euh, un fonctionnaire de l'État du Sénégal en service au ministère de l'éducation nationale. jàngee fan. lycée hum, mix jàngee lycée mix Maurice Je suis euh, aussi institut polytechnique de Dakar. Mhm. waaw ba ni may si dans doonoon doon jàngalekat bon mujj ma nous euh, au niveau du ministère de l'éducation nationale mhm. à la direction de la formation et de la communication. kat bi ak politique bi loolu boole ñoom ñom yo xam nga politique nu mel politique bari dafa bari ay ay mbir bari ay détails. Mhm. yo xam ne sax des fois postures yi. mën nañ la sax coller ay motifs yo xam ne amaana sax yow bindo woni waye lu ci ëpp dañu seetlu ne euh, lu ni mel day bokk sax ci trajectoire doomu aadama loola dugal ci politique lu tax nga taamu def politique bi nga xam ne ku ne xam na ne dafa dafa bari coow. waaw loolu moom dëgg la. Euh, xam nga ne jamono ni mu ak ni mu tëddee deful politique politique. def euh, def la. <laughs> wala ñu def politique sa voilà ñu la loolu euh, après avoir servi l'État on est en train de toujours servir l'État. Euh, di fayeeku weer di régler ces problèmes, di régler ces jafe-jafe par contre amna ñeneen ño xamante aussi amuñu lolu mënuñu lolu des fois nga gis jaar yoon lu jaarul yoon euh lolu taxna ñu pourquoi nous engager en politique bu ko défé lu bëri ñu mën ko xeex ñu mën ko soppi ba képp koo xamante ne citoyen sénégalais la sa àq ak sa yelleef nga mën koo jot si mim réew. kañ la la normatif bi dugg ban jamono bu jëkk nga nga nga yëg ni ci jóg na. bon première les premiers pas. Euh, depuis à bas Parce que moi, de nature, j'ai très tôt été syndicaliste. Depuis euh, l'école primaire, le secondaire. <laughs> oui, dans mhm. casse, parce que beaucoup injustice. Beaucoup moins dans les adama. ici primaire, du à grève, secondaire, partout, diar, vraiment, les à nangoul, mobiliser ñu sa parti bu PDS la de. c'est mon parti bu du PDS. ban parti bu Ligue démocratique le mouvement pour le parti du travail. Uh-huh. LDMPT. waaw voilà aussi j'étais très jeune. mon mon papa ma maman ils étaient tous des responsables au sommet de ce parti. d'accord ah, je les soutenais. je les soutenais. politiquement bon j'ai vu l'œuvre les œuvres de Maître Abdoulaye Wade, sa générosité, ses ambitions pour le Sénégal et pour l'Afrique mon tax. J'ai pris mes responsabilités. Avant 2000 ou juste après 2000 Non, avant. Avant 2000. Oui, j'ai pris mes responsabilités pour nous, Nexi, Vetam, Diapaleko, politiquement. Et depuis Bobo Belégui, je n'ai pas de regret. Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade xam nga euh, euh, dans sa trajectoire on a vu que mm. il a d'abord été quelque part proche de Senghor après jekki mm. euh, per saawam mm-hmm. Abdoulaye Wade commencé nag nekk le le la la tête de turc véritablement donc de la politique sénégalaise mm-hmm. Yengel Sénégal ba ba ba réew dafa yëngatu mm-hmm. un vrai opposant quelque part ben instant sax dem na ba xaw a jegewaat nguuru Abdou Diouf après voilà les gens ba mu demee ba ñu xañ ko lu ci ëpp ay élections. Mhm. ñu dem à une certaine euh, époque après les les les, périodes 83 88 etc. toutes ces dates là euh, ba ñu 2000 nous avons gis ne moom la ñu dem jëli Andiko, emporté haut la main li nga xam ne euh, cette élection avec une coalition tey jii nii Abdoulaye Wade boobu bi ñu ko ci 2012 ak Légui, mhm. gis nañu euh, amna à ay euh, chopper yu ñu nemmeeku ci biir parti bi lan nga jàng ci Abdoulaye ward avec cette trajectoire. voilà euh, dëgg la c'est vrai Abdoulaye ward est un homme politique d'une dimension extraordinaire très rusé. C'est la raison pour laquelle euh, le président Senghor l'appelait la Ndiombor. Uh-huh. voilà, chaque fois, euh, avec contexte, ñu tollu, amna ay feemam ay stratégie yu muy tek pour surmonter des obstacles. tout à fait voilà pour euh, gérer des problèmes. c'est la raison pour laquelle à chaque fois wax nga ko légui ci sa wax chaque fois dina fexé nu muy def pour non seulement pour que Sénégal am jàmm hein Sénégal am jàmm wessoul bu réew mi demee ba tang ba jaxasoo ba dal mu ñëw dugg ci gouvernement. Euh, dalal xelu sénégalais yi euh, indi jàmm si réew mi. muy lu exemplaire hein, parce que jamono boobu euh, comme li ñu mhm. récemment. Mhm. comme li ñu également en en donc il y a un 23 juin entre autres. Mhm. Abdoulaye Wade jamono boobu mënoon naa mënoon naa bokk ci ñi lakk réew mi te exemplarité le loolu. par rapport aux acteurs politiques actuels. voilà loolu rek chaque fois dafay firndeel ne Abdoulaye Wade c'est un grand homme d'État. parce que 23 juin bu ko neexoon. malgré les étudiants yi. te voilà voilà bu ko nee bu ko neexoon. Mhm. du premièrement il avait les forces pour faire face mais il ne l'a pas fait. Mhm. deuxièmement aussi dafa bàyyi xel ci li kilifa yi wax parce que dafay dégg ndigalu kilifa. waaw mhm. loolu moo tax li nga xamante ne loolu peuple bi taxawee keroog mu bàyyi loxoom waaw te yaakaar naa ne amul conséquence parce que nous cadavres ko daan rek pale bu fekkonte ne si ay ray ay nit wala kii yooyu. waaw dox ci ay cadavre dox si ay cadavre mm. président de la bu mm-hmm. aussi la ko pour conserver le pouvoir aussi du du ray ay nit sénégalais pour conserver le pouvoir. Alors, le Sénégal, cité en démocratie presque dans, dans, dans l'Afrique, mhm. surtout en Afrique de, de l'Ouest, mhm. euh, le président Macky Sall, euh, nous euh, savons ses alliés, nous sommes au pouvoir donc, depuis la déchéance de Wad en 2012. Nous avons Macky Sall au moins deux mandats épuisés. Mm -hmm. Il en tant qu'opposant y am un candidat bu tuddu Karim une représentativité au niveau départemental mhm. est-ce que mhm. dans ce combat politique est-ce que le département de joue son rôle dans ce qui est au moins euh, cette ambition politique du Parti démocratique sénégalais après le pouvoir opposé mhm. y opposer mais on a l'impression que dans le département on ne vous entend même pas qu'est-ce qui se passe voilà euh, très bonne question ça ne marche pas dans le département le parti démocratique sénégalais dans le département de Rufisque ne fonctionne pas. parce que parti bouille fonctionner mais d'affaires am animation a une animation mais parti a une animation aujourd'hui Daouda est le président de la fédération départementale ñu nangul koko, nangul nañ ko parce que amul ben assemblée générale bo xamantene fal amul. ah bon Feu Ndiawar Touré moom moo fi nekkoon ak Aline Soirée. kon c'est consensuel comme président c'est consensuel parce que magla yagne si parti bi fofu d'ailleurs sax man damay damay damay rafetlu wa lolou chaque fois man lolou neex na ma si mom lol bi parti bi daano ba léegi demul fenn mu ngi fidélité fidélité dans le parti. muy lu mu lu mu diggaale woon ak Abdoulaye wad la wëy di téye nii. waaw loolu moom wax dëgg mhm. mi ngi koy ba léegi. mais nak li deug gi moy doxalul parti bi parti bi doxul parti bi yënguwul fi ci département bi. Ce loolu moom moo tax loolu ñun ñu en collectif non seulement pour animer le parti par rapport la directive que nga xamante ne maître joxe vous responsables organisez le parti vous responsables massifiez le parti vous responsables préparez le retour de de notre candidat Karim Wad, en 2024 Nous, sur cette base nous nous génn dem de mobiliser nit ñi massifier parti pour me préparer l'arrivée de notre candidat aussi de préparer aussi pour la vente des cartes au niveau euh, du parti parce que euh, la commission nationale de vente de cartes boo ils ont sillonné les 45 départements du pays Sénégal pour lancer cette vente de cartes nous donnons lancement un peu partout bon militants et gis c'est ci mobiliser derrière le frère euh, Dieng ce qui veut dire que le parti euh, au niveau national se porte Très bien. Et à est-ce que vous avez vendu Est-ce que vous pensez que Oui, euh, oui, la commission, ils étaient là. Hein. C'est simplement c'est le processus qui est, lancé. Mais maintenant, nous, attendons la venue euh, de la commission hein, pour euh, officiellement démarrer la vente des cartes. Alors, dans le parti, mm-hmm. dans le département ne bouge pas, à mon animation. Mm-hmm. Euh, mais tey jii sous su su parti bi toogee ba fi après nga ne il est resté fidèle à ça mais il ñi nga xamné da euh, euh, collectif alors pourquoi est-ce que ngeen def genre sorte de front pourquoi ngeen créer un collectif alors que dans l'organisation du parti am ngeen consensus. ou mhm. a bàyyi Daouda Niang mu doxal ngeen jël ay bant jam ko ci waaw. dëgg la ñun euh, amuñu benn xaar ma yàlla ak Daouda Niang c'est sûr c'est sûr amuñu benn xaar ma yàlla li ma jaaxal mooy li ngeen dem dem ku si am ku si xaar ma yàlla parce que man boo demee bay def collectif Assane ah, peut-être da ngaa am lu la neexul ci kër waaw ku si xam ku si am xaar yàlla ak Daouda Niang par personne interposée ñu jàll sa gannaaw ñu regle ko mais li nga xamante ne moom lañ dul nangu ñun benn dañoo bëgg suñu parti dox fii si département bi loolu dañ ko bëgg nous avons des ambitions au niveau des des des des communes et dans le département mais bu ñu gisee ne kooku doxalul parti bi mais dañ koy dénoncer bi ñu gisee ne kooku tëddeewul njaaxaanaay daaw dañaa tëddeewul njaaxaanaay moom dafa yaakaar ne parti bi alalam la. ah soo na ku ko neex. tëddeewul njaaxaanaay maanaam par rapport ak yéen ñi nga xam ne yéen a def collectif dafa am loo xam ne tey jii nii. Ah, da ngeen waroon a nàmp ci weer mi te nàmpoo leen. waaw parce que ñun mosuñ du à convoqué réunion duñu ñu convoqué réunion. yéen waa collectif bi ñun waa collectif ñaata ngeen. bon ñun bon dans chaque section nous sommes représentés si vous voyez parce que ñooñu ñëpp ma lay waxal ni c'est pas du duñ duñ ay n'importe qui par exemple si vous allez à, à, au nord hmm, il y a Salutop. Top Salut Top c'est un membre du comité directeur muy ben, muy ben il y a Dembanya, Niang. ah Mamadou oui c'est des membres du comité directeur et et et, du FNCL. Mhm. ah Mamadou le doyen Mamadou Nying. Pape Samba. Yande Fall secrétaire membre secrétariat national Ibrahim Sissé, Cissé. membre secrétariat national la. c'est dans le nord. Mhm. ah maire Koundiaka Sen, Sène. Mhm. S le responsable Talla Diagne nga jël ouest le maire Abou Gueye le maire Ibrahima Cissé ah, le doyen Souleymane Ciss Alassane Sen à l'ouest ah boo le responsable Ousmane Mendy ma fa ah nga Peul et tant d'autres nga ñëw le professeur Abdoul Aziz Ndoye mo nga fa bo dans la commune de Bambelor, man Manga fa El Mame Ongué Gueye Alassane Sar Samb Fat tiao Aminte Soare, Nogay Faye Djibril Ndiaye Mbaye Yag, Mamadou Ndiaye de Pap Pape Komiko, Comico ñooñu ñep c'est des responsables yo xamantene ne ñi ma cité ni Bambilor dans chaque village ou bien dans chaque cité c'est des grands responsables yo xamantene man mi sax ci parti bi la len fek ba ils sont dans le collectif ak ñi ma la cité au niveau de Rufus, ñun ñoo and nek ben say pour que li nga xamante ne Daouda Niang moom la bëgg a fii si parti bi duñ ko nangu. lan la bëgg a instaurer. bëgg toog saa yu ko neexee mu ne diw la saa yu ko neexee mu dindi la. doon buur bummi. déedéet di doon bëggu bon doon buur di doon mi loolu nag d' accord ñu si le parti est un parti démocratique. lan lañ leen di reprocher yi liñ fi lim lépp te ku nekk nekk ay responsable ñenn ñi sax nee nga ñuy yow en tant que peut-être leader en tant que ci biir parti bi nga leen fekk. Mhm. je pense que loolu également c' est une sorte de fidélité waroon na mën a nekk des gens yoo xam ne dañu waroon di continuer. Mhm. Euh, donc euh, di défendre le parti. Mhm. mais on a l' impression que également quelque part il y a eu une faute lourde une faute grave pour que vous soyez mis à l'écart par rapport ak li nga xam ne moom moo di la marche du parti. dans le non y' a pas de faute lourde ni de faute grave parce que euh, Daouda Niang moom tendance daf ko mus a intéressé. yàgg na si partie bi lool mais si ay tendance lay dox te loolu partie bu nga xamante ne dafa am ay ambition bëggaat reconquérir le pouvoir ay tendance baaxu aussi mais est-ce que du yéen yéen a bëgg a ujjee ak. moom pour seet ku ko remplacer. non non non dans l'instance. non non non ñun loolu taxuñoo jóg. mais lan lañ leen di reprocher lan yéen lan ngeen lan lan lan lan lañ leen wax parce que am na loo xam ne aussi moom lañ leen jiiñ amul. non man amul ah, leen jiiñ non man boobu dégguma ko. parce que mun leen xëy nii rek du jour au lendemain on vous dit on vous met à l'écart sans vous informer sans vous avertir amul dara lu ñu wax ak yéen xëy benn bés rek ber leen ba ngeen yëg ne bokkatu leen ci tax ngeen beru. waaw man à ma connaissance. lu ñuy jiiñ man bokk xaw ma ko moom moo ko xam peut-être que moom boo ko interpellé wala dans son camp ñoom dinañ ko wax mais ñun daal li ñu soxal mooy parti bi ku ko doxal ñu doxal ko ku ko doxalul ñun dinañ ko doxal ñun si loolu lañ nekk si directive maître Abdoulaye Wade pourtant jamono bi ngeen jamono bi ngeen koy xupp nii jamono bi ngeen di am lu leen metti ci moom ni muy doxale mhm. moom daaw ñaa dañaa Abdoulaye Wade xëccaat na ko gën ko tas qui veut waaye peut responsabilité yoo xam une mhm. envergure nationale et mhm. également mu continuer que mhm. véritablement donc le patron du parti démocratique Sénégal le département de waouh waaw c'est ko c'est un maire maire ville parti actuellement nii maire ville dans le pays xam nga ne ah, parti du ko du du <laughs> mais nak mom dafa mel ni loolu nga bëgg wax du du du euh, stratégie politique la quoi. stratégie politique la. mais nak mom peut-être il n'a pas compris. Mm-hmm. dafay jéem a utiliser statut maire am pour combattre ses propres frères de parti. c'est grave li nga c'est grave dafay il combat ses propres frères de parti. lolu lay def ni jamono ji ñu tollu té lolu nak ñun kenn du euh, enterrer politiquement vivant ñun lolu duñ ko nangu parti bi ñun ñoko bokk. Il y lancer un appel autour de l'unité autour de l'unité Nous avons beaucoup relever certains défis politiques mais il reste sourd à cela Si réunion du réunion hein? ah lu muy munti def ses propres euh, ñoo xamante ne. dañ leen remplacer yéen en tant que ay responsable dañ leen non remplacer maanaam poste yi ngeen yor sur le plan par exemple soo demee ce ce voilà bo demee Bambelor. Bambelor. est-ce qu'il y a. quelqu'un qui est implanté à à en lieu et place. oui oui à Bambelor, quelqu'un est implanté en lieu et place de de Guilé. mais yéen kon vous êtes sur le repoussoir. te tegu ko ça tegu ko que tegu ko te tegu ko sur ben non génnuñu parti bi nous sommes dans le parti. Hein? et nous comptons nous battre dans le parti. parce que dès que fi comme quelqu'un comme le responsable de de de Yen. oui voilà lui aussi c'est la même chose il a été remplacé Moi aussi remplacé pour l'année mais pour aussi il ben ça Ben sortie de xam ne na le parti. mais le bu amee que la section de Yen se réunisse. est ce que Yen, ça, du Yen les antennes.

les collectivités. Et comment il a remplacé au niveau de ta localité euh, Un certain Moudou Danfaha. Euh, parce que le maire, il a carrément dit que, oui, ce gars-là, il est fortuné, hein, il faut le laisser hein, diriger le parti. Euh, le comité. il n'est pas nouveau dans, dans le. Dans, non, il est nouveau. Il est nouveau. Quand il venait aux élections locales, il était tout à fait nouveau dans le parti gëmloo que il a les moyens il a il a tout hein, vraiment faut bëgg parti partie, faut bëgg Abdoulaye Wade hein. euh, bon Wa lor ñu tok ñu waxtan parce que euh, jamono jojo man ci sama bop man ci sama bop j'avais le profil pour diriger liste bu mais comme lor le poids électoral de lor est assez costaud. Mm-hmm. Les autres qui euh, ils ont investi des responsables à Bambilor comme tête de liste. On s'est dit que nous, nous faisons ce bop. Nous avons investir quelqu'un sur Bambilor. Pour nous avons fofu compétition bi dina jax ñu mën am dara ñun sur cette base nous avons ñu jël nous ñu tête de liste mais à notre grande surprise tout ce qu'ils nous disaient, tout ce qu'ils nous racontaient, c'est des contre-vérités et au finish, on a eu des résultats catastrophiques. Un conseil et l'autre est passé par le plus forest. Voilà. voilà. Et vous avez été représentatif au niveau du conseil de, de, Bambilor. Est-ce que, à mon présence, est-ce que tu es honnête Est-ce que ces conseillers-là, ils continuent de mener le combat du parti dans, dans, le, non, ces conseils ont démissionné une fois élus. Euh, une, fois, une, fois, élu. On, avait... comment Bon, ils ont quitté le parti pour, euh, pour rejoindre. Ah, D'accord, ils ont transhumé. Ils ont transhumé. Depuis, lors. Ah, À votre détriment. Ah, pour le Parti démocratique sénégalais. Après, wow, transhumé, dem. Transhumé, dem. Tous les deux. Mais est-ce que aussi, c'est pas la politique de Ndiagne Job qui est convaincant, qui fait que, mon il a besoin donc de bras, Mougis Nengi, le Mona utiliser, et que c'est une partie de puisqu'il y a tellement d'implosions loolu loolu moom moom beaucoup ko defee mais c'est de bonne guerre c'est un politicien oui mais nit da ngay am ngor c'est vrai nit da ngay am ngor man mënuma nek ci liste parti falma mhm. des gens se sont battus hein, man élection yoy non dañ ma sé dor agressé yow mi ni man ni, hein, ah, ngeen ñew jall ci liste bobu noonu ba paré daw dem et vous l'avez vécu comment sur le plan local par exemple nan ngeen est-ce que da ngeen gis ne dañu dañu dañu dañ leen trahir. non dañu trahir dañu trahir man bu doon man la man bu may bàyyi ndombal tànku bi nga trahi. dama koy dama koy jox dama koy jox mais mënoo ñew nga parti parti xex ba fal nga jël sen dem on avait possibilité. Euh, de, de, de faire des recours et tout ça. Oui, oui, oui parce qu'il y a une légalité ah, derrière. top si vous mais en vain surtout. Mais au niveau de, de, de, de, de la sphère départementale, est-ce que mm par exemple au niveau de la préfecture est-ce que nous sont informés. que oui normalement il y a un moment de ba. oui on l'a fait au niveau de la. sous parce que nous dépendons de la préfecture de la suppléance. la suppléance mhm. nous xam par rapport à une liste. Mhm. celui qui est donc titulaire après Bouidem, wala qui est remplacé, c'est normalement celui. qui est Oui, tout est calé Le code électoral le livre, comment est-ce que vous allez perdre vous allez perdre. mais on a tout fait mais dans sorti où bon mais l'India est quoi et vous êtes laissé faire aussi. ah mais nous nous, def. justement on est à Bambilor on y reste Bambilor la la cité où il y a comme le disons, hein, il y a mm-hmm. une une marge politique très remuante. Il mm-hmm. euh, ñi nga xam ne a fa De perdre d'ailleurs ce ces deux. Euh, postes de conseiller. Mm-hmm. le maire Ndiaye qui est euh, donc à la tête de l'institution. Est-ce que est-ce que politiquement il y a une sorte d'adversité entre yéen ñi nga xamné ne yéen fay responsable démocratique ak mom mi nga xamné mom moy mooy euh, euh, donc c'est euh, coalition Benno Bokk Yaakaar. Mhm. rawat surtout à Bambilor. Mhm. rawatina également mu nekk le maire nan ngeen gisee la gestion bi nga xamné mom lay def d'abord administrativement et politiquement en tant que politicien bon bon administrativement loolu. Euh, parce que tu mën a duñ si mën a bëri na seen administrativement loolu duñ si mën Sorry, parce que. Mm-hmm. Euh, Ken boolewu leen ci. Euh, non seulement kenn boolewuñu si mais aussi Euh, li nga xamante ne jumtukaay yi nga xamante war nañ ko yor pour la gestion locale à ko. c'est vrai que c'est vrai ouais, ah, parce que amuñu la représentativité c'est vrai ça vous porte préjudice. voilà ça nous a véritablement porté préjudice. motax tax à y a beaucoup de ces questions yo xamante ne munuñ rousse xuus munuñ wax. Ah, deuxièmement euh, sur le plan politique bon bon chacun joue son rôle chacun joue son rôle. nous malgré euh, la division malgré aussi que Ndiagne il a les moyens de faire sa politique mu si dénicher hein, di di di di di dénicher ay responsables. fa dara mais aussi mais aussi nous sommes dans nous sommes dans une localité bi nga de faire des day de faire yaatu bu ñii demee dina ñëw. d'accord c'est lolu c'est dans le cadre général. Mhm. parti démocratique sénégalais moo bindee noonu. Mhm. waaw train la rek buy dem à chaque gare. am na ñuy wàcc dina am ñuy wàcc. dina am ñuy yéeg. ak ñuy sax waaw <laughs> dañuy dabu ñu train mhm. waaw partout. sur l'ensemble du territoire national le parti fonctionne comme ça faut déggee ñaar wala ñet responsable yu dem fuk wala témèr ñëwaat nañ ci parti bi ñu bees waaw lolu da fay def lu dul confirmer ndëgër laay parti bi dafay def lu confirmer nit ñi gëm-gëm bi ñu am ci parti bi bi ñu am ci président Abdoulaye Wade yaakaar gi ñu am aussi sur suñu candidat Karim Maysa Wade en 2024 justement Karim Maysa Wade 2024 euh, parti démocratique sénégalais département Bourfisk euh, sen sen sen sen seen regard ci li nga xamné ne euh, ngeen euh, nemmeeku ba bañu koy euh, demam ba ca CREI ba ba finalement fa mu muju ndungu sin ñu dem ba mu yagg

ak yeen sen sen sen attente ci li nga xamne mom modi amnistie bi parce que dénoncé won ngeen par tous les voies et moyens jusque sur le plan africain que né procès ko doon defal c'était une intention de procès mais n'était c'était pas quelque chose de fondé parce que wër nañu ba sonn gisuñu fan la dougal ay milliards ak mel yeen en tant que donc euh, responsable politique sur le dans le département de l'office comment est-ce que vous avez vécu ça voilà nous l'avons vécu avec euh, beaucoup de euh, désolation mais cela aussi ne nous a pas permis de rester les bras croisés. D'accord. Voilà, nous nous sommes battus. Karim Binko Diapé, Bonimi Guéné, on s'est battu. Ah, l'histoire nous a donné raison. Organiser un simulacre de projet, de procès. Hein, créer une commission rogatoire à travers le monde. Il faut aller, il faut aller loolu yëpp gisuñu ci dara les institutions internationales se sont prononcées là-dessus ne kii nguuru Macky Sall di toppee nii deful dara amul dara loo xamante ne lëndëm na ci wala amul dara loo xamante ne def na ko ah ay CDA ñëpp daal wax nañ ci àdduna wërngël këpp ñëpp wax nañ ci te ñëpp aussi ils ont compris waaw kon nag tey loolu damu parti démocratique sénégalais la waaw si mu toll nii nag ñun ay amnistie yooyu waxuñu ko. Ce que nous voulons. Ce que nous voulons, c'est que le procès soit révisé. D'accord. La révision du Parce procès. Parce que dara defuñu dara c'était politique. waaw ah, bëggoon na empêcher Karim de présenter où parce que tey une élection présidentielle vous tëddee bu PDS bokkoon. 2019 2019 hmm. le parti démocratique sénégalais participé activement. aujourd'hui la page Macky Sall c'est définitivement tournée. ah gagné absolument ah. absolument bu ñu ça, sax bu ñu gañewul ah participer ah, à lui faire perdre le pouvoir. Ah d'accord, wow. peut-être à la ah, limite, parce que voilà. on a vu qu'il y a une recomposition voilà, donc, de, du Landerneau. Il y a un instant, en dans les aussi même hmm. comme comme Sonko, et même même hmm. ceux qui après sont devenus des alliés de Macky Sall, à l'occurrence Idriss Seck, hmm. qui fut deuxième, Sonko troisième, quelque part c'est un peu dommage pour Khalifa Sall mm-hmm. mais au moins il a pris sa masse mm-hmm. mais Macky gagné hein. oh. est-ce que vous avez ah. dara. Ah mais le PDS représente quelque chose dans ce pays hein. c'est le plus grand parti. Hein. les départements mais le fait de ne pas lekk ci cere ji mhm. tibb le souf ne ko ci xep parce que euh, je veux dire jamono bobu Abdoulaye Wade mon na la latitude de de demander aux militants mhm. d'offrir une consigne de vote mhm. leur faire suivre un regard faire suivre un candidat mais top ko pour que euh, li ngeen mais puisque vous ne vous êtes pas représenté par le trichement de ce que vous appelez au moins euh, donc une posture politique tay ngeen <laughs> ngeen ne

élection yoo xamante toutes les conditions n'étaient pas réunies ñeen ñi fi pour dem si ay élection ñi doon kaas ñëpp amul kenn ku ci génn këyit buy firnde ne fii à part ay vidéo yu ñu jaarale ci internet yi fan ngeen fan ngeen teg ne dañoo sàcc affaire bon une large frange de jeunes yoo xamante ne dañoo waroon voter primo votant yi waaw qu'est-ce qui s'est passé mais ñooñu ñooñu bu ñu voté woon rek mënoon nañ basculer le pouvoir ah gis ne dañ leen élagué dañ leen élagué dañ leen élagué ah le fichier électoral ba léegi amagul consensus ah loolu rek c'est des raisons. yoo xam ne dolli ci ay parrainage dolli ci ay parrainage pour écarter ay ay ay ay ay ay nit ay ay ay ay candidat, ah loolu rek tous ces raisons qui réunis mënoon na tax élection bañ a am mais Ablaye Wade loolu la gis taxaw wax ko carrément ba Sénégalais yëpp dégg ko. Après les élections, les gens lui ont donné raison, effectivement. Et cette autre partie euh, de, des opposants qui, est qui sont allés à, l'élection, mhm. est-ce que vous avez vu beaucoup un regard par rapport à ce doute qui est resté un peu étalé par rapport à ce que ambition Est-ce que vous avez vu dafa am yeneen ambition yu nourrir tax ñu dem accepter véritablement donc aller euh, braver ou brader au moins euh, braver du moins euh, la candidature de Macky Sall opposé ou ak pour participer à ces élections pourquoi est-ce que ñeneen ñi boycotté wu ils avaient pas la même posture ils avaient pas la même posture Et ñu nax aussi ñu gis-gis parce que élection yo xamante si participer rek pour le simple plaisir d'y participer lolu c'est ce que vous avez refusé waaw PDS du non pour que nous participions à l'élection il faudrait que toutes les. mais aussi c'était laisser libre champ à Maxal et à sa coalition. Mhm. parce que vous vous votez ngeen voté wul leen consigne de vote mais c'est pour la poids électorale euh, bi nga xam ne en 2012. Mm-hmm. le poids là normalement après à part quelques effritements. Mm-hmm. poids faut continuer à di mm-hmm. une constance. devant Macky Sall. nekkoon un poids en votre faveur. fait qu'elle ne vote à vous lui laissez libre champ de faire face à une opposant à une opposition peut-être jusque-là méconnue. mais qui à part Idrissa sec n'avait pas beaucoup de chance face à une une si grosse coalition qui s'appelle Benno Bokoyaka, buntu waaw ñun mënuñu woon voter ci élection yoo xamante dara encore une fois élection yooyu dara leeru ci te PDS du participer ci ay élection yoo surtout ay élection présidentielle, yoo xamante les conditions n'étaient pas réunies dañ ciy dem rek pour le simple plaisir de participer et de les perdre waaw ñun si anam yooyu noonu amuñu ci luñ ñu négocier demuñu euh, le PDS a pris ses responsabilités de ne pas y participer on s'en limite tout simplement à ça. Tout le reste, ce qu'a fait les, différents candidats, Lolo, s'en engage que, mais Lolo engage le parti. Sur le plan local, on a vu que, euh, malgré tout, euh, mhm. malgré tout, une opposition était là, malgré tout, Benno Bokyakar, qui a donné des signaux mhm. de victoire avant, la lettre, mhm. et qui finalement, avec presque le, même taux donc euh, d'élection, a été élu presque à plus de 50 55% mhm. c'était une surprise pour rien wala moy la ngène waxone rek que ne gaañ daño préparer préparé woon coup réussir que nous ko bëggé voilà lolu la rek parce que et pourtant sur le plan local ils ont battu campagne gis ngène leen dem nañu convaincre l'opinion ba gaañu watelaat malgré tout Rufisque bi nga xamné moy département bi euh, ñom tamit dañ fi am ndam bu mhm. est-ce que lolu aussi du parce que population a ñoo def confiance bon wala ba léegi siège vote bi la euh, sàcc bi la. lépp si siège sàcc bi la waaw loolu rek def day def lu dul ah conforter ñun suñu position par rapport à ça. parce que ba léegi nii. li ngeen def fichier électoral c'est pas une fuite en avant. non fichier électoral ba léegi amagul consensus ba léegi waa ji ñemewul dem organiser élection il y a eu combien de reports fichier bi ñaata ngeen ñaata yoon lañ leen wax woo leen ay experts ñu woo ay experts yoo xam ne ils viennent de l'étranger ñu ñëw càmbar mais mais pourquoi. des experts à, l'étranger ah, mais, pourquoi des experts à l'étranger. il y a il y a de l'expertise dans ce pays. mais mais pour plus de confiance par rapport. à plus de. plus de confiance par rapport aux acteurs. Ah, est-ce que ces experts nous en tant que politiques, nous inspirent confiance. point d'interrogation point d'interrogation parce que t'as dit, Amni Sénégal c'est un recul démocratique vouloir pousser des élections à deux ou trois reprises vraiment c'est du jamais vu ça n'a jamais été dans l'histoire politique du Sénégal Mais puisque continue continuer d'insister que dañ ko a réviser dañ ko regarder, a xoolaat regarder, yoon da en 2019 est-ce que ce n'est pas de bonne guerre que Macky Sall oui et qui demandait à ce que nous càmbaraat absolument c'est de bonne guerre pour Macky Sall parce que le contexte ne lui est pas favorable pour participer aux élections ah parce qu'il faut arranger. Il faut arranger. Il faut arranger. Voilà. Et l'opposition qui a participé là <laughs> au, à son euh, simulacre de dialogue hein, n'ont pas pleinement joué leur, le rôle. Dialogue bi nga xam ne yéen sax ña fa demoon ñëpp te bokkoon si yéen da ngeen leen raxas. voilà ñu mujj doon ñëw ñëw doonaat ay ministre gis nga Omar Sarr en l'occurrence. tu as vu tu as vu moo tax moo tax gis nga parti bi Maître Wade <laughs> lu mu wax rek. day ah. gudd day day rek mais day ñëw. <laughs> waaw tey ji Anamou. Omar Sarr Prep modem dem participer au dialogue waaw loolu moo indi problème yi tey ji ana mu il s'est retrouvé ministre de la république kon nag kooku lépp lu mu doon def moom moo noon da doon liggéeyal Macky Sall si alors justement on a l'impression que l'implosion au, niveau du parti démocratique sénégalais puisqu'on en parle avec Omar Sarr, ni défection yi nga xamné sétlu nañu ko Amadou Sall quelque part mais Amadou Sall et d'autres leaders hein, donc mm -hmm. euh, euh, Pape, euh, Pape Mboup, hein, mm-hmm. le euh, l'autre gars du palais, les on a l'impression que le Parti démocratique sénégalais, certes, c'est un train, à mhm. chaque gare, des entrants et des sortants, mais vous perdez donc des bras. Mhm. Sur un plan national, est-ce que à, à, terme, à, long terme, nous devons euh, aura bien amour, poids sur le plan politique Bon, vous savez, ainsi va la politique, ainsi va le monde. Voilà. Euh, Mom. Parce qu'un parti, Qui était, parti qui était là pendant 40 ans mhm. a commencé à faire implosion. Ils ont fini mouillé. Ils ont le pouvoir. Ouais, mais c'est tout à fait Ça normal. risque pas de vous arriver. Mais c'est tout à fait normal. Nous avons des degrés d'engagement, de militantisme différents. C'est le pouvoir qui les arrange ñoom dañu yaakaar ne dañoo tout le temps dund ci pouvoir ñun ñëpp dem nañ seen yoon ñi idéo parti parti quoi dans le parti nañu liñ fi doon tout temps Karim parti bi entre autres lañ euh, une démolition monarchique cette euh, dévolution monarchique a continué à persister même dans le parti et ça a dérangé certains ñu dem mais quelle dévolution monarchique. quelle dévolution monarchique Non. Karim non Karim biñ investir en tant que candidat en 2019 à ah, euh, à la base ñun a pas investir partout amon na un candidat ay candidats candidat na candidats il n'avait d'où on Karim de kese mais Karim les a tous euh, battus ñu feulé rek ñu jël ko parachuter ko def ko candidat. mais avec ah, ceux organiser avec ceux qui sont fidèles à Wade mais c'était facile loolu à faire. non non non c'était être le fils du du du patron du parti. non c'est la démocratie ça de source. am na ñoo xamante nañ si amna na ñoo si mais au finish nous sommes en démocratie Karim les a largement remporté ñu def ko suñu candidat ken parachuter wu ko tey ak leneen lu mu munti en 2024 il sera notre candidat mais dañuy organiser congrès congrès d'investiture investir que ah parti aussi ah dañ koy dans les règles de l'art le parti alors justement euh, il y a au niveau du département de l'office, mhm. dans cette forme d'organisation mhm. ceux qui sont purement des karimistes mhm. ak c'est des fidèles à WAD. est-ce que c'est dans ce dans ce dans ce voilà donc dans ce euh, cette tension interne que une partie du dund ci département bu Rufisque am na ñoo xam ba légui ñu ngi fidèle li nga liste collectif bi ngeen doon mais ah. également Daouda Niang a autour de lui mhm. euh, une genre une sorte de task force bo xamné mom mhm. moy continuer di nekk ak yéen si CLDR bi ngeen bi ngeen taxaw face à ñom. Mhm. bon mom euh, man dama gis ne gis nga task task force bobu noonu nga gis mu nekk autour de Daouda Niang euh, du taxe force bu nga en amal na parti bi waaw il est mal entouré. ah bon il est mal entouré. c'est-à-dire. Moi, mooy force bi nga wax tout leur mérite c'est d'insulter. des des responsables d'honnêtes. des responsables du parti. parce que cette taxe force là devait faire face aujourd'hui au pouvoir au pouvoir di génne leurs carences leurs faiblesses et tout pour préparer les futures échéances mais au contraire tey ta force boobu noonu c'est dirigé contre nous de ñu s'aga, de ñu tam dëmm de ñu lu est ñun ñu koy wax ci wax ju ñaaw mais ñun yooyu yëpp duñ leen ci wuyu duñ leen tontu ñun am nañ liggéey bu ñuy def te ñoo ngi ci te bu soobee yàlla kenn mënuñu see génnee parti bi ku ko animé wul ñu animé ko parti bi ku ko defarul non mais nous sommes à la base. ah oui nous sommes à la base. c'est si base di mais mais au niveau des bases aussi. non nous nous remplacer au niveau de ah, de bases la engagé. au niveau de nos bases respectives nous représentons quelque chose tous les membres du collectif ku si nekk da nga am sa base parce que ñun tay ji tay ji suba bu commission vente de carte ñëwoon dinañ xam kan moy kan ñun amuñu budget amuñu dara nous avons nos maigres moyens yo xamante nous ñu ngi ci pour parti bi waaw légui nak j'en profite pour dire à d'autres gens que parti bi ñun ñëpp ñoo ko parti bi kenn moomu ko du lu kenn moom magla, la ku ne mag ne sagesse dafa war a tëddee njaaxaanaay woo ñëpp uuf ñëpp boole ñëpp bu ëllëgee buy dem mu bàyyi fi un parti très fort un parti solide mais anam yi muy doxalee nii baaxul peut-être Magla, peut-être je dis bien peut-être moto ambition pour euh, remplir au niveau de la mairie mais le parti aujourd'hui le parti aujourd'hui c'est élection locale yi de les communes d'arrondissement les hommes partent le parti reste le parti demeure oui ah, kon nag mom si anam dafa mais parce que l'immédiat est après dafay porter partie préjudice yàq bi muy bi ngeen koy jiiñ ci ci ngañ yi mu jege ñi ko kii ñoo koy ñoo yàq affaire yi. ñoo yàq affaire yi ñoo yàq affaire yi. am kilifa kilifa da ngay woote. dañuy dul dañ dul dañ ko dul wax lu luy luy arrangé. waaw tout le wala dañ koy wax. li ko arrangé moom. li ko arrangé moom la ñuy wax parce que. si si si lan ngeen sukkandiku. parce que moom moo tax nga fi wax ay ay ay saaga yooyu mën na ñàkk si. si non mën na ñàkk ñun du ñu saaga ah ñun ñun li ñuy def mooy dem. wàcc si sur le terrain le terrain ñun suba ngoon guddee bëccëg si loolu la ñu nekk. alors mbokk yi ñu ngi ni seen émission jàkkaarloo politique euh, nga xam ne euh, tey suñu gan moom moo di euh, Guilé Diop moom mi nga xam ne responsable politique la fële ca commune bu Bambilor ci waa parti démocratique sénégalais ci li ñu dese ci waxtu mën ngeen woote ci 88 628 double 013, comme ni ñu tam di ko defee rek ci li nga xam ne moom moo di. simili mujj yi ci bi lépp euh, émission waaye gilee mhm. euh, benn jamono lu président euh, Macky Sall malgré coow yi ngeen di am coono yi ngeen di am am na ñeneen ñu leen ëpp ay coono muy ndaw ñi mhm. gis nañu ko ci affaire Sonko Macky Sonko Macky Sall mhm. Sonko ak Adji ndaw ñi benn jamono profito ci porox ndoll bi daal di génn ci mbedd yi def xupp def mer. Mhm. dugg sax ba ci yenn makkaan yu nga ne dañoo jàpp ne nasaraan si moo leen mhm. ndax France gaz doon yàgg di génn ci mbedd mi di woo askan bi ci fànn yi. Mhm. daawuñu woon wuyu ji waaye bile dañoo dem ba ñu ñi la goutte de trop qui a fait déborder le vase. la ñu def mooy fexe ba euh, toj yëngu est-ce que tey les jeunes avaient raison de se faire entendre rapport à la politique de Macky Sall, mhm. qui a remporté deux élections de suite, mais très roule. La population sénégalaise, en, particulier cette frange jeune, n'a pas été contente de la gestion du pays. Mhm. Est-ce que les jeunes avaient raison de se faire entendre par cette manière mm, euh, Absolument. Les jeunes avaient véritablement raison pour se faire entendre. parce que euh, de métiers. jeunes yi dañoo yàgg muñ waaw dañoo yàgg am ay problème mel ni am nañu moo tax am na benn benn gan ci ligne bi 88 628 0013 salaamaaleykum avait raison salaamaaleykum salaamaaleykum maaleykum salaam <laughs> ah kooka la Moussa waaw ah Moussa sa na nga def yaa ngi si jàmm ah lay jox bu jërëjëf delloo nañ lay ko ah di nuyu plateau Mm-hmm. Mm-hmm. jërëjëf ñu ngi lay delloo ziar. Mm-hmm. Ah, euh, ñu gën ko xam si Mamadou Diop responsable de membre du CLF et membre du benn mooy bureau national de l'UJTL au niveau euh, maa ngi lay dégg waaw maa ngi lay dégg waaw. allo Moussa. ma waaw bu Gile mu ngi noonu mu ngi lay dégg. waaw. allo maa lay ziar bu baax a baax di la jox sa wàccuwaay ziar bu waaw balaa maa wax ak yow tamit damay nuyoo pare di nuyu le frère secrétaire général national le président Ablaye Wade di ko jox wàccuwaayam di ko ñaanal gudd fan ak wér ak wér la di ñaanal sunu frère Karim yàlla may ko wér ak wér la ba mu ñëw ba jiite li nga xamante ne mooy Sénégal di ñaanal le président de la fédération département de Rufisque l'homme des défis monsieur Daouda Niang euh, Gile Gile mu ngi lay dégg waaw. allo maa lay ziar a ne tey moom wax dëgg yàlla yàlla tamit sa propos yi nga wax man dama rus je suis meurtri dama rus parce que tamit kii la yow tu es jeune jeune wax naa la que en face à face ñu jàkkaarloo yow xale nga ndaw nga te yow lii am si département de Rufisque yow kii la yow yaa ko gën a xam kenn gënu la ko xam parce que yow tu as été coordonnateur avant qu'on avant daa faxa tu es coordonnateur te sa coordonnateur kan moo ko toggoon Dile c' est Saliou Top c' est pas Daouda Niang de c' est Saliou Saliou Top qui a tout manigancé ginnaaw Saliou Top nag moo mën a dem ba Mbambilor di fa fal li nga xamante ne mooy coordonnateur saqantuma daaw dañaa fu mu nekk ni c'est le deuxième homme fort du parti démocratique sénégalais daaw dañaa mi nga xamante bi ñu ñëpp bàyyee tous les maires ñëpp bàyyi ñu moom rek moo fi des ñëpp bàyyi ñu moom rek mu des tey jii nii ba Abdoulaye Wade jël confiance rek ci moom sama moo wax naa la ko en face yoon bi ngeen jël nii di yoon bu baax ni parce que tamit nag daaw dañaa entraîné travailler le parti dans le département de Rufisque actuellement nii lépp a ngi dox ku wax parti tous les douze coordonnateurs ñu ngi daje réunion tous les responsables du CLT, de l'UCTL ñu ngi réunion tous les responsables des femmes ñu ngi réunion lépp a ngi dox lépp a ngi dox fu mu nekk kañ dafa amu des les ambitions ñoo bokkul si yéen ñi nga turonoonu yëpp ku si nekk mën naa limal kenn par kenn tay bu fekkoon émission bi dama taxo mën naa limal ku si nekk sa ambition sa ambition morom du benn kon ñooñu parti bi taxu leen jóg tay jii dañ na leen na moo ko ñor lu parti bi dafa baaxee Daouda Niang lenn moo ko ñor lu parti bi dëgëri Daouda Niang lenn moo ko ñor lu Karim Wade nekkee président de la République tey jii bu leen ñoroon wala xaalis wala dëgërul parti bi dëgër na ba ba bu bu yàgg parce que il a les moyens il a lépp loo xamante ne état bi soxla na ko mu toog jàppale parti bi fonte bi mon frère dama ne yoon bi nga jël noonu baaxul ñi nga àndal noonu. Baye jërëjëf jërëjëf Baye jërëjëf merci beaucoup waaw xam nga temps Ah, on va donner la latitude à d'autres véritablement donc ñu mën intervenir def naa dégg nga li mu wax néna mom moom wax dëgg mhm. euh, euh ku ci mel comme euh, je pense ki mu tuddu moy Saliou Top. Mhm. néna ñu néna mom du mom euh, par rapport ak li nga xam lan ngay tontu déjà par rapport ak lolu wala mu ne Top. moom mooy nekk ci préparer mbir yi si sa si sa responsabilité. am na yoo xamante ne mais c'est pas Daouda Niang. waaw am na yoo xamante ne jarul jarul tontu. waaw parce que waruñu personnaliser. voilà waruñu personnaliser. le débat mais est-ce que tout va bien comme il le dit n'est-ce pas le parti. tout tout tous les responsables donc euh, des euh, des euh, des de la base ñu ngi waxtaan au niveau donc. non loolu moo amul. xam nga xam nga dëgg moom dañ koy wax dëgg dañ koy wax. fi la ñu fekk fi la ñuy bàyyi ko. ñun gisuñu ko ñun liñu ñu gis mooy parti bi dans le département doxul. parce parce que yow journaliste nga yow si leen isolé yéen si leen isolé yéen ngeen beru ngeen def sen collectif. Mhm. téréwul mom mu ngi gisee ak ñi nga xam mu ngi gisee waaw mo ce qui veut dire que mom li mu wax am na. te ñu ñu continuer di liggéey. té lolu lolu sax bo gisee jamono yi ñom ñuy gisee di yëngatu di ki c'est parce que xam nañ ne ñun nous sommes sur le terrain waaw chaque fois on les oblige nous les obligeons à travailler léegi nag loolu am na Daouda Niang porte de sortie vente des cartes ça profile à l'horizon léegi mu ñëw waroon profite de cette situation ne xamal woo ñëpp ne leen nag léegi daal mbir ma ngi ni di ñew ku mën a jàkka ku mën a nodd nga nodd ku gañe ñu xam ne yaa ñi gañewul and sax ñi gagné, bu boba ñun ñëpp ñu and doon ben bu ko défé parti bi gëna am doole ci département bi mais bu togué di wo ñi ne yaakaar ne moom ñii ay responsable am ñun musu ñoo wo musu ñoo wo ñun aussi nous tok toog diko sétane ñun aussi dañuy organiser wu en collectif pour restaurer la légalité dans ce parti parce qu'il y a des problèmes au niveau des sections au niveau du département yow journaliste nga mus nga dégg parti démocratique sénégalais woote fii si eh, mairie ville mairie ville sen kii bi ñan ñoo eh, utiliser lu ci ëpp Benno Bokk musu musuñoo dégg ñu woote assemblée générale fofu wala eh, benn manifestation d'envergure départementale amul au moins def nañ fa benn conférence de presse waaw waaw loolu yëpp pour pour nous attaquer loolu yëpp pour nous attaquer ou bien pour faire croire au parti que parti baa ngi dox ñu jëm ci ay élections locales ngeen continuer nii di di mbiicoo mbaloo est-ce que tey jii nii bu yowmal falaat jotee di ngeen am chance devant l'opinion puisque à votre interne dafa mel ni vous na vous n'avez pas des odeurs de sainteté yéen ñëpp àndu leen euh, di tirer vers la la même direction est-ce que tey jii nii tey jii nii bu ñu xëyoon rek ne élection locale en décembre 2021 euh, vingt et wala janvier vingt deux ñu ne élection locale tey jii nii du ngeen am ay problème xam nga bo gisee mairie ville xam nga ñun mairie ville ñaari conseil lañ fa am. muy daw de ñaaw may fàttali ni Assane mën nañu woote ci li ñu dese ci ay simili 88 628 00 13 pour dugg ci émission bi. bo xolé mairie ville PDS ñaari conseil la fa am muy daw de ñaaw ak Saliou Top waaw daw de ñaaw liko fal wax naa ko sank c'était des arrangements politiques moo tax tey jii mu doon maire. un consensus en interne. voilà moo tax tey mu doon maire waaw léegi nag moom conseil municipal ville mais c'est à 80% à pour mais de APR à 100% donc du am les coups de franche non léegi nag ñun sur cette base nous devons organiser pour que élection yii di ñëw ñu contrôler la ville et les autres communes d'arrondissement loolu moom moo waroon nekk liggéeyu daaw dañaa bu fekkente ne moom bëggatul mais na ko organiser ah mais du ma rempiler waat rek damay jaxase kii bi créer des tendances un peu partout ah jéem organiser ay nit pour wan parti bi que ne moom mu ngi liggéey pour pouvoir pour prétendre être député sur la liste nationale du seen gis-gis yéen kese est-ce que yéen le collectif yéen parce que kenn kenn kenn boolewu leen si ah, ngeen mer commencé di di euh, di di do ci tànk yi mais naka ngay amé suñu collectif bi suñu collectif bi du n'importe qui mo fa nekk y a des membres du comité directeur waxna ko 5 on a deux membres secrétariat national hein des membres FNCL ak ay responsables un peu partout mais ñooñu war nañ leen négliger ñooñu war nañ leen négliger ñoñu kenn def leen gëna bëgg parti bi loolu bu amee moom na woote ñu ngi profito ñun daal waxtaan lañ bëgg parti bi lañ bëgg kenn gënuñoo bëgg parti bi na wu uuf ñëpp. d'accord alors on va revenir sur fu ñu yemoon avant intervention bu Baye Mandiaye mhm. euh, si ndaw ñi le président Macky Sall dernièrement dafa woote conseil présidentiel à Diamniadio. Mhm. Euh, promettre euh, véritablement même fast track ba mu doon wax auparavant def naa a bëggal. Hmm. parti démocratique sénégalais est-ce que am ngeen yaakaar ci cet de charme bi le président Macky Sall vers à l'endroit de la jeunesse. Hmm. pour que ñu jëlaat encore plus de 400 milliards. réinvestir que sur des projets donc de création d'emplois toujours à la disposition de la jeunesse à quelques encablures de 24 il n'est jamais trop tard pour bien faire non amuñu si ben yakar. Euh, Macky Sall promettra na fi cinq cent mille emplois. oui vous mu est-ce que wax nañu fu mu toll wax na Sénégalais cinq cent mille emplois Yo mou diggoon si temps yoonu côté fan la si il faut évaluer il faut évaluer ah. mais le président il a l'habitude c'est autour avec ce avec les les différentes équipes il veut mettre en place que il n'a pas il n'a pas eu les hommes qu'il fallait au moment qu'il fallait ñom ñoo deful le job. waaw loolu si si parce que Sénégalais fal Sénégalais à chaque étape on rendre au Sénégalais compte que si parce que 12 19 après 19 21 ngay soog réaliser que ah. le message de la nation. Ah, c'est un peu paradoxal il faut paradoxal paradoxal vraiment. loolu moom ñun si aussi nañu wax 450 milliards yooyu fan la koy jëlee fan la koy fan. na éclairer la lanterne des Sénégalais. sur ah, la provenance de ces quatre milliards. xam nga ne nga nga une politique généralement. Mhm. c'est de la provision c'est de la prévision. dans ces dans dans le sillage des 4000 milliards. Uh-huh. peut-être quelque part il avait. Euh, mhm. donc euh, dans son sous son escarcelle. Mhm. lo xam ne peut-être nako quelque part motax mu il peut pas se lever du matin au soir. sans avoir au moins réfléchir ou penser à, donc, à un projet qui peut mm-hmm. amener des, des, des milliards, de, autant de milliards, au moment où les jeunes dañoo geddoon dem biti réew di dee ay mm-hmm. au moment où euh, sonne qui dundin gi ak la transition bi nga xam mom le Covid bi dougal nga xëy benn bés jeunes yi génn ci mbedd bi nga ne dégg na je vous promets 400 milliards alors que tu n'as pas 400 milliards. tu n'as pas 400 milliards Macky Sall ne fera jamais ça il a 400 ah. milliards. ah nous sommes dans un pays où le déficit budgétaire est de 70 milliards 75 milliards de masse salariale ah, la dette plafonnée hein, le contexte bi nga wax ni, fan milliards yo, qui ay jeunes loolu je n'y crois pas. déjà il y ay ay structures yoo xam ne taxaw nañ ñoom ANPEJ ñoom euh, DER ak yooyu peut-être. ces milliards là restent encore dans les caisses. mais loolu yàgg na fi te réglé wul dara bu doon loolu la ay ANPEJ ak ay fonds yi wax ay ñun ñëpp joué nañ pleinement leur rôle quand tey du ñu yegg fii et dire analyser la situation bi nga xamante ça a poussé les jeunes la population particulièrement les jeunes à réagir sur l'effet Sonko comprendrait qu'on a problème chômage là je pense que véritablement c'est se tromper de cibles Donc la, la question c'est pas des questions une question de milliards. Non c'est pas des questions de milliards hein. c'est pas des questions de chômage. Ah, c'est une vision globale oui, de la gestion du pays. Oui, de la gestion du pays. C'est ça, c'est ça qui a fait que les jeunes sont sortis en masse pour exprimer leur ras-de-bol. Ah, vraiment, présent lolu muy wax en tout cas wessu nañ ko fiñu toll ni dal ñetti at yi ko déssé hmm la wara def. han lu wara def. mu préparé wu mu dem. ah yow dégg nga fii ay troisième mandat yu yu gaay di ourdir nii. troisième mandat lolu lolu dañ koy téré légui dé ki bi terme bi. waaw terme troisième mandat mom kérok hmm. benn waay mi ngi doon wax né <laughs> mu ne Macky daal léegi buy kii sax da un deux après day tëb trois bi ne quatre tellement que trois trois kenn bëggatu ko dégg léegi ci réew mi il a fait ce qu'il devait faire ces deux mandats gis nañ ne réew mi doxul réew mi tële na y a des problèmes partout li ko war rek mooy mu dem par la grande porte. en deux minutes Karim Wade sera-t-il candidat pour Yen. et également qui va jouir jouir. Mhm. voilà revenir à jouir donc de ses droits. Mhm. d'électeur et d'être éligible. Mhm. absolument Karim Wade sera bel et bien candidat Tedina, nous sommes en train de travailler sur cette base pour que non seulement bu nous accueillir de façon triomphale Euh, jox ko réew mi. te ah. gis nga loolu. Mhm. ñu si foowuñu si reewuñu si. li ngeen bëgg a faluwaat yéen waa PDS bu euh, neexee yàlla. parce que tey jii parce que les sénégalais ont regretté. ah bon votre départ les oui les sénégalais ont véritablement regretté notre départ waaw parce que dañoo juum. Abdoulaye Wade boo seetloo ba mu ñibbisee sénégalais lan lañ ko doon wéyal góor gi dañoo juum góor gi dañoo juum. voilà et jusqu'à présent. Les ah, sénégalais ñoo ci folli. sénégalais ñoo non pour man ah. da nga non sax yeen a ci session bi ngeen qui non non non non non non sénégalais ñoo juumoon folli ko tey regretté nañ ko. ñew nañ indi nañ Macky Sall hein mais dara doxul Karim Wade il sera bientôt de retour et nous l'allons il sera notre candidat. benen mu question bi moy élection locale. Mhm. dinañ ko ko tenir le calendrier sera respecté fin 21 début euh, début euh, début 2021 euh, fin 2021 oui ou début décembre 2021 oui ou, début voilà il y a deux dates oui. décembre 2021 et janvier oui oui voilà le pouvoir veut coûte que coûte l'organiser en janvier 2021. 22. Oui. et hein? vous savez nettement que en janvier 2000, en mai, je ne sais pas, avril 2000, c'est les élections législatives. Euh, le pouvoir est dans la logique de, couplage. Eux, ils sont dans la logique de couplage. Voilà. C'est pas, le regard de l'opposition Non, non, non, non, non, Maintenant, tout dépend de l'attitude de l'opposition. Oui. Ne Ah, élections à date issue nañ ko organiser en décembre mais ñun bëggatuñu ay sànni ay xeer non waaw y a différentes formes de de de lutte waaw mais nañ taxaw am fulla am fayda bu ko defee or élection yi ñu organiser ko en décembre tàggool euh, maa lay gërëm di la sant ci waaw maa ngi kontaan bu baax si invitation bi euh, encore une fois di ah, remercier di rendre nga baal ma dafa mel ni dafa am ku mujj ñëw uh-huh. salaamaaleykum 88 628 00 T sëñ bi yow la kan ak fooy ñuy ah d' accord. conseil municipal ville. ñu ngi lay wax dalal ak jàmm. membre comité directeur PDS. allo. département bi noonu la dem maire Daouda Niang suñu frère de parti la comme ni ma ko waxee tey nekk autour de lui comme Baye Mandiaye moom duggoon léegi gis nga kam Mandiaye mama yàlla campagnal mama yàlla watal pour présenté wu responsabilité yi mu yor au niveau de PDS mais dina am parti di dem élection nga woti parti ñëwaat dellu si nga nit yow yaay responsable ci jeunesse donc il faut arrêter bu ñu foyee xelu nit ñi te ngeen dafa xat xamante ne ku nekk xam ne kii kii tey ñu nekk autour de Daouda Niang amul kenn ku ko ci wateeloon ci élection locale yi Daouda Niang falo kon may félicité Gille di ko encouragé di félicité yéen waa rajo Jokkoo di rafetlu seen taxawaay ci Tëngéej ak département bi waaw mu mel ni euh, jokkoo bi moo xaw a jafe ñu koy euh, jaajëfal bu baax waaw léegi euh, dégg nga li euh, Saliou Top wax de. waaw du def lu dul euh, confirmer Saliou Top lu mu wax c'est un grand responsable. il était un des fidèles compagnons wax naa la sànq ne il est ils sont les deux conseillers à la ville de Rufisque waaw amul c'est membre comité directeur la waaw il était un des plus proches collaborateurs de Daouda d'accord aujourd'hui tey jii lan moo leen teqale parce que bokkuñu gis-gis bokkuñu xalaat ci doxalinu parti bi écarté nako ko. te yéen parti ñëpp yéenay parti démocratique sénégalais. sénégalais léegi euh, baal ma parce que fa lañ nekkoon. Mhm. ñu ko won bañ Assane je pense que mën nañu euh, sursoir à ce téléphone. Mhm. Euh, ñu bayila nga tagato parce que émission bi jeex voilà jërëjëf du def lu contane ci émission bi di remercier di di woté pour jàmm ci parti bi. Mhm. parce que lool mom mo am solo. jërëjëf wa and bolo tax les futures échéances à venir nous mun ko remporter largement. Mhm. mais dans la division politique on ne pourra rien réussir Daouda Niang mag la euh, moo ñu boote ñun ñëpp na tëddee njaaxaanaay na woo ñëpp. waxtaan bu ko parti bi quant à Bambilor. Mhm. j'appelle tous les responsables de la commune de Bambilor du parti démocratique sénégalais. Mhm. élection bu ñëwee.

kenn mënu ko xar ñaar ku yóbbu na nga xam loolu te kenn du duñu tay mukk si liggéeyal parti bi ñu ngi ñaanal met Abdoulaye Wade yàlla may ko wér ak gudd fan di ñaanal aussi suñu candidat Karim Wade mu ñibbisi ak jàmm ba ñu yóbbu ko palais de la république ma koy gërëm di la sant Jile Diop moo nekkoon seen euh, invité seen émission jàkkaarloo politique Moussa Pouy moo nekkoon ci xukaay bi asan Ndiour moo fare woon ci xarala gi rafetlu seen ànd ak bileb radio gërëm itam ñi doon euh, déglu ñëpp ñi nga xam ne waaw dégg naa téléphone baa ngi toj ñi nga xam ne également bëggoon nañu dugg te mënuñu ko ñi jot a dugg également di leen jaajëfal ndaxte surtout Assane nit ñi bi ñu duggee wax ju rafet rek la ñu wax kenn waxu fi baat bu ëpp baat bu safaanoo loolu lañ leen gërëmee di leen sant incha allah te d'ailleurs dinañu am l'autre camp parce que <laughs> yow yi nga task force bu euh, donc euh, Daouda Niang bi dinañ leen woo pour que li nga wax fii ñoom également ñu ñëw taxaw weddi tuuma ndax lu ci bëri ci ñoom dañu jàpp ne comme ni ko Baye Mandiaye waxee ñu leen fa euh, lañu bëggoon a dégg dig daje incha allah dimanche lay doon waaye bii la yoon dañuy jéggi sax waa PDS incha allah ak ki nga xam ne moom moo di euh, Pate Ndiaye xam nga ko moom ay jamono nekkoon responsable politique euh, parti socialiste te nekk jamono bi également kuy jiite kuréelu parti incha allah moo nar a doon seen gan ci seen émission jàkkaarloo politique bu ñu ca noppee nag des na woo koo xam ne rëdd nañ ko ba noppi muy euh, Ibrahima euh, Lay Sène donc incha allah moom moo fas ne doon ba ca topp ganuk euh, jàkkaarloo politique gis nga de Assane tàmbali nañ di rëdd rëdd gi moo tax may wax les annonceurs ah, képp koo xam ne da nga bëgg am de la visibilité émission bi mooy toj tëngëj <laughs> Assane donc képp koo xam ne da bëgg am de la visibilité ñëwal fii nga doon partenaire wala nga doon parrain mbaa nga doon sponsor bu émission bile saa su ne danañ la may. mbooleem ñi ñuy déglu ci département bi dimanche bu jot xam yaay kan xam loo yor xam fooy toll jërë ngeen jëf Moussa Pouy coxkaay bi Assane Diouf ci xarala gi ba dimanche ak jàmm ci beneen émission jàkkaarloo politique ngeen Fall jambaam ndigal bayi góor Fall may sa bige Kumba jambaro